alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad mbokki ci yàlla téléspectateur Mouslih TV ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di dellu waat ak yéen ci téere bii di maza yaani intimaa lil islaam bokk bi ma bokk ci lislaam lan lay tekki tey ñu ngi dellu waat ci war a tàmbali tomb bu njëkk bi ci tontu laaj woowu bi ci njëkk moo di jullit bi dafa war a xam ni dafa am ay mbir yoo xamante ni dafa war a daje ci moom bu dajee ci moom ci la bokkam ci lislaam di ndax ci lay nekk jullit dëgg-dëgg mu nekkoon juróom benni tomb bi ci njëkk di nakal lay nekkee jullit ci sama pas-pas bi maanaam ma nekk jullit ci sama pas-pas loolu nag dinañ ko jàngat ci ay tomb yu bare waaye bi ci njëkk moo di ma nekk ku gëm ne yàlla moom mooy bind univers bi ne yàlla moom mooy ki bind univers bi te yàlla boobu bind univers bi ku xereñ la waaye ku mën la waaye ku xam la waaye kii ku maîtriser li muy def la li koy wone moo di bu ñu seetantalee univers bi ni mu mel ci rafet ci nose waaye élément bu nekk soxla moroomam ngir mën a mët ba nga xamante ni benn mënta dem bàyyi moroomam mbir yooyu ki nga xamante ni mooy ki ko boole yépp maîtriser ko ba benn bu ci nekk di mottali moroomam waaye benn bu ci nekk di jouer rôle beneen bu ci nekk jouer rôle ba muy jouer bu ko defee rôle yooyu yëpp bu dajee mu mën a ñongal li nga xam ne moom mooy dund bi waaye univers bi mën a nekk univers boo xamante ni bu am harmonie la amul. benn rëq-rëq amul benn défaillance yàlla mi ngi wax ni law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata fa subhaanallahi rabbil arshi amma yasifuun yàlla ne bu fekkoon ni univers bi dafa am yeneen yàlla bu dul moom dong kon ñeneen yàlla la am du moom kenn moom mooy kii moom lépp bon univers bi dina yàqu asamaan ak suuf dina jaxasoo waaye armone bi mu am ak des bi mu des ci ni muy doxee dafay tekki ni kenn kese moo ko moom kenn kese moo ko maîtriser kenn kese moo koy doxal kenn kese moom mooy ki am kàttan ak pouvoir ci kawam waaye bu dul loolu bu doon ay yàlla yu bari la kii mën na bëgg a taw kii ne dafay naaj bu boobaa rapport de force lay posé wu kii nee na guddi kii nee na bëccëg kii nee na sedd kii nee na tàng bu boobaa perturbation dafay am ndax kenn ku ci nekk da bëgga bëgg a imposer sa bos bon lii dafay tekki nii bon kenn kese moom mooy kii doxal lépp amul keneen koo xamante ni am na choix wala mu am décision ci li xam ne moom mooy nii univers bi di doxee te mbokk yi bu ñu xoolee univers bi ni ko yàlla bindee ak li ci nekk ci kemtaan war na doy jullit bi mu xam ni dafa war a gëm ni yàlla kenn kese la te moom kese moom mooy kiy doxal univers bi amul keneen koo xamante ni am na ci benn wàll ñun ñu ngi dund ci biir suuf si muy la ter la terre mu bokk ci benn système bu ñuy wax système solaire mu ànd ak yeneen i moroomi planète am yu ñu bokk système solaire boobu weer wi benn la ci planète Mars ci la bokk euh, Mercure ci la bokk Vénus ci la bokk ak yeneen i xeetu planètes yi nga xamante ni dem na ci juróom-ñett benn bu ci nekk position bi la yàlla teg boobu moom mooy bi baax suuf si distance bi mu am diggante ak jant bi bu ko ëppoon tuuti ci soriwaay suuf si seddaayu da ci bari ba doomu aadama yi dañuy duñu mën a dund waaye bu ko jegee woon lu ëpp fi mu toll dina tàng tàngaay boo xamante ni doomu aadama duñu mën a dund bon ki ko teg ci distance boo xamante ni dafay permettre doomu aadama yi ñu mën a dund di mën a jëfandikoo ci euh, jant bi tàngaay boo xamante ni bu doy la ci li ñuy soxla kooku ku xam li muy def la ku maîtriser li muy def la ku xam lan la loolu soxla mu teg ko ci palaasam exact waaye mbokk yi système solaire bi benn système bu ndaw la ci biir ay système yu baree baree bari yoo xamante ni mu ngi ci biir univers bi système yooyu bokk daje ci li ñu tuddee galaxie galaxi bu nekk ay système yu baree bari ñoo ci daje ñun benn système la ci biir benn galaxie te yàlla bind na ci univers bi ay galaxies yoo xamante ni yu baree baree bari la yu am ay systèmes yu baree baree bari bon ki organiser loolu yëpp ba lépp tegu ci yoon ba doomu aadama yi mën a dund ci kaw suuf te amuñu benn jafe-jafe kooku moom mooy ki xereñ kooku moom mooy ki am xam-xam kooku moom mooy ki am kàttan kooku moom mooy ki mën waaye kooku moom dong moom mooy ki nga xamante ni moom mooy yàlla bon mbokk yi ñaari yàlla amul ñetti yàlla amul waaye benn yàlla kese moo am bon jullit bi balaa pas-pasam di mat il faut mu nangul yàlla ni moom kese moom mooy ki bind univers bi waaye moom kese moom mooy ki koy doxal moom kese mooy ki ci am sañ-sañ mbokk yi ngir jullit bi pas-pasam mën a wér ñaareelu tomb bi daje aussi ci li nga xam ne moom moo te moo mu nekk koo xamante ni dafay gëm ne kii bindu univers bi mu yàlla bu kawe bu màgg bi bindul univers bi ngir ay fo bind ko ci tâtonnage ndax ki nga xamante ni moom mooy ki mët ki am kàttan ki am mën-mën ba bind lu toll nii harmoniser ko ci façon bu mel nii amul benn perturbation kooku jomb na di bind ngir ay caaxaan mais nag mbokk yi bu ñu bëggee xam lan moo tax mu bind univers bi mënuñu ko xam lu dul à travers yónnente yi nga xamante ni ñoom la yónni ñu ñëw leeral ñu lan moo tax mu bind univers bi yàlla mi ngi wax ci alquranul karim ca suratul muminuuna aya 116 afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun ndax da ngeen yaakaar ni dama leen bind dañu leen bind ci caaxaan ndax dangeen ngeen yaakaar ni du ngeen dellusiwaat ci man bu fekkee loolu ngeen yaakaar bon xam leen yaakaar boobu doxul mbokki ci yàlla borom bi tabaraka wa taala xamal nañu ni li tax mu bind nañu objectif la lu mu programmé la lu mu tëral la ba tax na bon kenn ku nekk ci ñun na ko bàyyi xel waaye mbokk nañu xam ni bokk na ci pas-pas bi ñu war a am en tant que ay jullit ngir suñu pas-pas mën a wér suñu jullite mën a wér moo di ñetteel bi ma nekk koo xamante ni damay gëm ni yàlla tabaraka wa dafa yónni ay yonent wàcce ay téere ngir mu xamal nit ñi lan moo tax mu bind leen waaye mu xamal leen yoon wi ñu war a jaar waaye mu xamal leen fan la ñuy mujj bokk na ci yonente yooyu kii di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni yàlla mi ngi ko dooleele ci jox ko lii di alquranul karim mu nekk kémtaan bu sax bu kenn mënta teggi yàlla dafay wax ni wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudu llaha wajtanibu tooxuut fa minhum man hada allahu wa minhum man xaqat alayhi dalaala weer na ni yónni nañ ci bépp peuple ab yónnent li tax ma yónni leen moom mooy nañu jàmm yàlla te ñu moytu jàmmu leneen lu dul yàlla am na ñoo xamante ni juube nañ ci yàlla gindi na leen ci mu am ci ñoo xamante ni euh, dafa yey ci seen kaw lii di euh, réer ba na mbokk yi kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel ni tomb yi de moom mooy euh, ñetteelu tomb ci li nga xamante ni moom lañu ñu war a euh, euh, am pour suñu pas-pas mën a wér aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh